Thiès musul woon ginnaaw Macky comme ni ma ko waxee ci fan ñu génn tey ñëpp xam nga ni président bu ñëwee dina gis ni Thiès musu ko woon ginnaaw te mu ci biir xolu en tout cas waaye waa waa Thiès aussi Macky Sall seen biir xol. Euh, teeru bi aussi day matérialiser taxawaay bu am solo bi ñu xam ni moom la ñu taxawee. li nga xam ne moom la ñu dëgmal ci Sénégal ndax président Macky Sall euh, li nga xam ni ci la ñu nekk ak moom mooy liggéey bi nga xam ne sumb na ko ñu mën ko accompagner mu yeggale ko ba nga xam ne dinañ mën a am loo xam ne ci réew mi lu am solo la kon ñoom tey ci Thiès je pense que dina am njeexital bu am solo ci Thiès waaye ndax dinañ ci waxtaanee waxtaan bu am solo mais tey li nga xam ne moo fi am ku ko gis sa war na dal président bu gis bu exceptionnelle kanam mooy li nga xam ne dafa mën solo te tey taxawaayu responsable yëpp gis na ko ñëpp dañu joxante loxo bokk ndey bokk baay wan président Macky Sall que taxaw na pour delloo buum ca booy booy ga nga xam ne nga xam ne xam bu baax a baax a baax ci lu jëm ak loolu rek mooy li nga xam ne am solo mais li ñuy xaar mooy ñu jël décision yu am solo ci Thiès nga amee li am na 2014 compétition yu am solo yi nga xam ne génnoon na ci li nga xamee ci loolu weesu na ñu amoon ci ay projet qui sont revenus dans le cadre du FERA mais également aussi am ko dans le cadre de l' enseignement supérieur 2014 bu génnee ci émission njeexital bu indi ISEP li nga xam ne nii aussi moo fi indi sans sapeur-pompier bu bees bi ak lépp li nga xam ne ay réalisation la ci école la grande école séparate candidat loolu amul lam-laamee moo tax nga gis taxawaay bi ñu taxaw ak moom war a ànd ak moom ci liggéey boo xam ni dinañ mucc ay 2024 ñu defaat liggéey boo xam ni da koy accompagner bu mën a étale Sénégal ak vision bi ñu am ak liggéey bu am solo mais unité bi am na bu gis am tey gis sama wet ni Abdoulaye Dieye Marème Diop Sylla gis tous les responsables de Thiès yi ànd war nga xam ni unité am na